أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa marhaban bikum ma al anbiya alayhim salaatu wassalaam tey ñoo ngi jël lenn ci qisasul anbiya ci adduruus al mustafaada min qissati muusa xam ngeen ne muusa ci yonent yi gën a gudd histoire ci islaam ci la bokk gis ngeen bi ñu commencé darsam ak léegi ma léegi jeexagul leçon yi passé ñoo ngi ciy def ay tomb yu ñuy toog fàttaliku ci ci lenn lu ñu jaar ci histoire Moussa ci luñ ci war a jële ci ay tomb dana toll ci fukki tomb ak ñeent ci dars yi ñu toll mu des yeneen yi bu soobee yàlla incha allah dinañ jéem xaaj ko ci digg bi ñu xool li nu passé lan lañ ci mën a jëriñoo ci dund yonent yàlla Moussa aleyhi salaatu wassalaam bi ci njëkk mooy ann al muslim ida waxda fala budda an yafiima bi waxdihi wa laqad raayna kayfa anna muusa alayhi salaam talaba minhu rajulu saalix an yatazawaja ibnatahu muqaabil an yara ganamahu li muddatin la taqillu an samaanin sanawaat wala taziidu an asara sanawaat faxtaara Moussa akmal al ajalayni wa makasa indahu asara sanawaat bokk na ci li ñuy jëlee ci dund yonent yàlla Moussa ci histoire yi ñu passé mooy jullit su waxee na respecté kàddoom jullit bu xasee wax waaw waaw la jullit bu xasee wax déedéet déedéet la jullit su xasee dog ci lenn ba jël décision ba ne waaw daf ko war a def mbokk yi gis nañ ci dund Moussa am na benn waaju baax bu mu fekk ci benn dëkk waa ji yor ñaari doom yu jigéen mu tànnloo ko ci kenn mu takk ko ci lan lay joxe can mooy mu sàmm juróom-ñetti at su motee fukk baax na waaye gis nañ Moussa liggéey na liggéey bu rafet kàddoom ba mu waxoon góor gi waaw ba góor gi may ko doomam respecté na ko waaye waxuma sax mu respecté kàddu gi góor gi juróom-ñetti at la ko waxoon Moussa sàmm fukki at te juróom-ñetti at la ko waxoon samaaniya la ko waxoon fa in mam fa in an mamta ashara fa min andik Moussa respecté na fukki at yi kon ab jullit mbokk yi su waxee waaw su diggee na ko matal su waxee waaw waaw la bu waxee déet déet la boroom xam-xam yi nee na isa qulta waaw isa qulta naam fii daynin fa atimmahu boo xasee wax waaw rek naam ñu ne respecté ko lu tax fay na naam daynun alal xurri waajib ndax waaw ci gor waaw bor la ci gor gor su xasee wax waaw rek waaw la loolu dañ ko jàng ci dund Moussa ñaareel anna Moussa la yansa ummuhu wa abihi wa usratihi alxaaliya Moussa tukki bi muy tukki takk bu mu takk jabar changé bu mu changé dëkk sori bu mu sori taxawul mu fàtte fameem fàttewul papaam fàttewul yaayam fàttewul ay mbokkam da ngay gis lenn ci ñun dañuy tukki rek fàtte rawatina nag boo demee ci dëkk ba nga takk foofu jabar subhanallah kenn mënta fexe ba nga ñibbi fa nga jóge woon waaye gis ngeen Moussa génn na dëkk ba bu muy nekk waxambaane nekk jeune ci diggu dooleem dem ñu may ko fa jabar mu sàmm fa fukki at kon gëj na gis baakëram ñaata at fukki at mu toog fa lu ko soob mu daal di jël ay bagage am jël soxnaam ak bagage ya mu yor anama départ fu mu jëm ca fameem فلقد رأينا كيف أخبر موسى زوجته بشوقه للقاء أمه وأخته بعد هذا الغياب الطويل gis nañ Moussa woo soxnaam mu ñëw mu ne ko man de dama bëgg a ñibbi xam nga ne fi dëkkuma fi dama fi ñëwoon dafa am lu ma fi indi woon te man sama waa kër sama famille namm naa leen damaa bëgg a dellu sama dëkk noonu la àndeek soxnaam ak ay bagaasam ak ay xaram yi ko góor gi mayoon mu dugg àll bi ba ñibbi fa mu dëkkoon loolu danañ ko jàng tukki waru laa soppi jabar waru laa soppi alal waru laa soppi doom waru laa soppi sori waru laa soppi bul tukki rek soppeeku daal ne tukki naa fa ma jóge woon dootuma fa delluwaat takk naa fi jabar am naa fi ay doom jënd naa fi kër nangam nangam di lay mukk tukki warul changer nit jabar warul changer nit doom warul changer nit am am warul changer nit sori warul changer nit fekkee ne ab jullit nga ak gàddaay tukki ak gàddaay du benn gàddaay moom mooy intiqaal loolu sax la ko gars yi di wax tukki mooy safar gàddaay moom la ñuy wax al hijra borom xam-xam bi ñu firi gàddaay dañu ne intiqaalun toxu la ngay jóge fi départ ku toxu nag lu muy tekki mooy fa nga jëm nga dëkk intiqaalun min balad ila balad bu fekkee ci sharia intiqaalun min baladi shirk ila baladi islam loolu mooy hijra ci gàddaay su fekkee gàddaay kese lañ wax baat bi ci arab mooy jóge ci dëkk jëm ci dëkk su fekkee ci lislaam nag lañ ci namm mooy jóge ci réew muy bokkaale nga dem ci réewum lislaam jóge ci réew mu ñuy bokkaale yàlla kenn du fa jaamu yàlla kenn du fa kennal yàlla nga jëm ci réew moo xam ne dañ fay jaamu yàlla di ko fa kennal di ko fa wéetal loolu mooy gàddaay ñetteel anna allah yaxluqu ma yasha wa yaxtaar wa annahu yastafa min ibadihi ma yasha wa laqad ixtaara allahu azza wa jal ala nabiyihi musa alayhi salaam liyukammila liyakmilahu wa yakuna munzu hazihi lahza kalimullah danañ jàng ci leçon yi ñu passé dañ ci jëlee ne yàllaay tànn anna allaha yàlla yaxluqu mooy bind maa yashaau lu ko neex wa yaxtaar yàllaay bind lu ko neex est-ce que ñun ñu toog fii bi ñu yàlla di bind kenn ci ñun dafa def demande ne ko yàlla bind ma def ma sénégalais naa ñuul naa dëkk Afrique naa nekk jullit naa nekk góor wala naa nekk nangam kan ci ñun fii yàlla rek la soob yàlla la neex mu bind la def la nit yàlla la neex mu def la jullit yàlla la neex mu wàcc la fii loolu yàlla la neex kon yàllaay bind waaye mooy tànn yàlla moomu moo tànn yonent yàlla mooy tànn ci jaam yi ku ko neex noonu la ko neexee mu tànn Moussa def ko yonent noonu la ko neexee mu tànn Moussa ci biir yonent yépp wax ak moom direct sans Jibril wa annahu kallama Moussa wa annahu kallama Moussa boo ko eggalee am mont tasliman très bien toogal foofu montre bi romb na la yàlla moo wax ak Moussa takliman yàlla wax ak Moussa ak wax yonent bu nekk am na lu la yàlla may yàlla lan la may Moussa mooy dafa wax ak moom tilka rusul faddalna baaduhum ala baad minhum man kallama allah ka Moussa am na ci ñu yàlla waxal kan la Moussa alayhi salaam am na ci ñoo xam ne yàlla lu mu leen may lan la am na ci yonent yoo xam ne lu leen yàlla may xam leen ko Moussa rek ngeen xam lu ko yàlla may ñeneen ñi lan la yàlla may Ibrahim mooy xalil xaritu yàlla wattaxasa allahu ibrahim xalilan yàlla subhaanahu wa taala mbokk yi ñeenteel mooy ann al muslim la budda an yaxtaar al rafiq qabla al tariq jullit war na wut àndandoo balaa muy jaar ci yoon balaa muy tukki boroom xam-xam yi dañu naan aljaar qabla daar balaa ngay wut kër utal dëkkandoo balaa ngay tukki utal ay àndandoo jullit war naa ut ay àndandoo balaa yoon lu tax yàlla subhaanahu wa taala moo sant Muusa bi an yazaba ila firawna sa'alahu an yu'inahu bi axi haarun fastafahu llah haarun liyakuna nabiyan fa kaana azamu hadiya yuqaddimuha Muusa li axihi haarun alayhi salaam yàlla mu ne Muusa demal ci firawna nga waar ko Muusa daan ne yàlla il faut ma am ku ma àndal yàlla ne ko koy proposé mu ne ko haaruna sama rakk yàlla ne ko def naa ko yonent yéen ñaar ànd leen ngeen dem waari kon nit day àndandoo dañuy tere kuy tukki moom kese kuy dem di tukki yow kese dañ koy tere wala ngay dem di traverser ab àll yow kese kuy dem da ngay ut koo àndal bu ngeen nekkee ñaar seytaane daw leen boo nekkee benn mu noggatu la kon kuy tukki tukki bu sori da ngay ut àndandoo àndandoo dafa baax yonent nee na tànn leen ay àndandoo balaa ngeen a tukki waaye tànn leen ay dëkkandoo balaa ngeen a ut kër balaa ngay jënd kër ci ab koñ wala ngay dëkk ak ay nit ñëwal foofu xoolal bu baax ñii ma dëkkal xoolal bu baax ndax fi am na jàkk xoolal bu baax xoolal bu baax xoolal bu baax xoolal bu baax ba nga gis luy lor sa njaboot nekk fi nga ñëw tànn foofu dëkk waaye gis nga léegi nit ñi moom lu ñuy tànn mooy tur yi tur yi rek foo dëkk Nord Foire foo dëkk Est Foire foo dëkk Sacré-Cœur yooyu rek la ñuy xool xooluñu lan lan lan moo leen fay fekk da ngay gis dëkk boo xam ne cité boo xam ne amul jàkk boo fa bëggee tabax jàkk sax waa koñ bi di kaas naan la terrain bi dañ ko bëgg a def espace vert quoi la hawla wala quwwata illa billah ñi ma gisoon ñu wax ko yëpp bañ ko ci ay quartier yàlla rey na leen ñeneen ñëw jënd kër ya tabax fa jàkk ci terrain yi am na benn waay boo xam ne terrain bu nekkoon ci këram mu ne daf koy def hôtel gars yi ne ko jàkk lañ koy def mu ne moom da koy def hôtel mu jaral ko mu dem ba mairie mu jaral ko mu dem ba ministère de l'intérieur di xeex gis nga waaye yàlla subhaanahu wa taala li mu bëgg ci diineem ji kenn mënu koo baare li mu bëgg rek mooy am lu waay sonn sonn sonn lu waaye xeex xeex xeex yàlla dina rey diine bi continuer bu doon diine bi dina feree ne depuis depuis aadama ba tey ñaata yonent ñoo fi jaar nit ñi di leen xeex nit ñi di dee ñaata guerre ñoo fi am ñaata ñaata ñaata ñoo ñëpp dee nañ islaam a ngi nii di wéy yonent beeg léegi rek ñaata mbir yuy xeex diine fi jaar te terewul diine jaa ngi nii di dund waaw loolu moo lay wane diine ji yàllaa ko moom diine yi yàlla la kenn mënu ci dërëm islaam jant la xamul fay xam ngeen jant xam nga jant fu muy nekk ci kaw asamaan est-ce que dina fay loolu mooy lislaam lislaam du fay loolu dinañ ko jàng mbokk yi dinañ jàng ne annahu ma kaana rafiqu fi shay'in illa zanahu àndandoo doo ànd ak moom ci dara lu dul yàlla rafetal àndandoo ba kon looloo tax képp kuy woote fa daayatu la budda an yakuna rafiqan wa rahiman fi daawatihi ki woote ci lislaam il faut mu nekk ku nooy il faut nekk ku bëri yërmande il faut mu nekk ku am yërmande ci woote bu muy woote la budda an yakuna arrafiq fi cheyin illa zaanahu nañu yëg ne yow miy woote ci yoonu yàlla boo amee àndandoo booy àndal daf lay dimbali nañu yëg loolu bu baax a baax a baax kii woote ci yoonu yàlla dafa war nekk ku nooy ku am yërmande ci woote gi muy woote falaqad ra'aynaa gis nañ kayfa anna allah azza wa jal lamma arsala muusa wa haarun alayhima assalaam ila firawna taaxiya qaala lahuma fa qulaa lahu qawlan layyinan laallahu yatazakkar aw yaxsha gis nañ mbokk yi yàlla bi mu yónnee muusa ci firawna lan la ko wax ah dem leen yéen ñaar fa quulaa lahu qawlan layyinan dem leen ngeen wax ko wax ju nooy te firawna kàccoor la yàlla ne nañ ko wax ju nooy wax joo xam ne laallahu yatazakkaru aw yaxsha wax jooju dina tax mu waaru wax jooju dina tax mu ragal yàlla te firaaw na kàccoor la kon yow léegi boo ñëwee ci ay jullit nag nga bëgg leen waar noo war a def su fekkee boo demee ci kàccoor ji wax ju nooy nga leen wala wax ndeysaan benn borom koo xam ne ne ay yow yàlla yow day yow yaa dégg firaaw na ne maay yàlla te bàyyi nga ko mu dund ci àdduna ba dee ñëw waa man mi nga xam ne nag musumaa wax loolu kon man yow yàlla loo ma war a dencal ci yërmande su fekkee yàlla moo yërëm firawna ci àdduna bi mu ne maayi yàlla yàlla reyu ko ci saasa yàlla ko bàyyi mu nekk ci nguuram di yaataa yimbe ba heure deem jot firawna ngi nii yàlla yónni ci moom Muusa ba pare yàlla ne moom Muusa wax ko wax ju nooy kon yow boo waree wax ak ay jullit loo leen war a wax am na benn waay benn sa kenn ci nit ñi boroom xam-xam yi dafa gis benn buur mu ne day waar buur bi mu ne yow buur bi boo dee da ngay dem safara yow ku bon nga yow bu la yàlla jàppee buur bi ne ko ah yow sa waaraate bi métti na di ko waaw noonu la amee de buur bi ne ko waa yow xanaa jàngoo alxuraan mu ne ah kay mu ne ko jàng histoire yonent yàlla Moussa mu ne waaw mu ne ko yow yaa ngi Moussa ku gën a baax waa ji ne ko Moussa ma gën a baax mu ne ko maag firaaw na ku gën a bon mu ne ko firaaw naa la gën a bon mu ne waaw xanaa déggoo yàlla mu ne fa quulaa lahu qawlan layyinan waa ji daa demoon waaraate ji ñu waar ko kon kuy woote ci yoonu yàlla nekk amal yërmande lewetal ah ndax ñi ngay woo mën a ñëw juróom-benneel an al mahamat ad daxma laa yaqumu biha illa ahlul iman mbokk yi am na mbir yoo xam ne dafa ponkale dafa rëy ñi gëm yàlla rek ñoo ko mën am na mbir yoo xam ne ku gëmul yàlla mënoo ko loo jéem jéem jéem jéem jéem jéem même boo jéemee triste sax ñaari fan ñetti fan nga arrêté su ma leen doon jox fi misaal lan laa leen di wax yow fajar dem jàkk ñëpp mënuñu ko de julli ji fajar chaque jour am na ñoo xam dañ mën nañu julli heure yëpp de bis yëpp de waaye dimanche dañuy grasse matinée ah yow fajar laa ilaha illallah ñu bëri mënuñu ko de beneen xiyaamul layl julli guddi ñu bëri mënuñu ko waaw yooyu ay mbir la yoo xam dafa ponkale ñi gëm yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ñoo ko mën ñi gëm yàlla dëgg ñoom ñoo mën mbir yooyu mbokk yi ñi gëm yàlla ragal yàlla nekk asxaabul himma al aaliya alladina istaanu billahi wa ala fa taahalu li taxamul masu ñi nga xam ne dañoo gëm ba pare am yitte bu kawe yitte bokk na ci tey li taarleel jullit yi mooy yitte nit dafa war am yitte ci yàlla tabaraka wa taala xam ngeen yonent yi dara taxul ñu raw nit ñi mooy yitte bu ñu amoon yitte boo xam ne yàlla jaral na leen ko ñu yenu ay jafe-jafe yenu ay problème pour jottali kàddu yàlla subhaanahu wa taala yemale guddi ak bëccëg ci seeni coono ak seeni jafe-jafe juróom-ñaareel annama kaana lillahi anna man kaana allahu maahu fala yanbagi an yaxsha ahad min albashar mbokk yi ku ànd ak yàlla waroo ragal kenn ku ànd ak yàlla waroo ragal mbindéef waratoo ragal nit waratoo ragal dara ci kaw suuf firawna ak Muusa ko ëppoon doole firawna moo ko ëppoon doole doole bu ndaw wala doole bu mag xoolal firawna ni mu tolloon xoolal doole ji mu yoroon xoolal ni ko nit ñi ragale woon xoolal mbugalam nu méttee woon waaye terewul Muusa ragalu ko de lu tax Muusa ragalu ko parce que Moussa daa ànd ak yàlla lu firaaw na mun a wax lu mu Moussa da koy delloo ci yàlla ndax ku ànd ak yàlla bu ragal kenn lan la ku ànd ak yàlla di ragale léeg-léeg nga gis ay nit di menace di la def ay menace waaw léeg-léeg nga gis ci borom xam-xam yi ñu ñuy menacé di leen woo téléphone di leen yóbbante ay lettre di leen yóbbante ay message di leen koj ci mbedd yi di saaga di wax wax yu bon waaye est-ce que loolu dafa war a tax ñoo ñu ragal deltu ginnaaw mukk loolu daf laa war a gën a saxloo loolu daf laa war a gën a ñemeloo loolu daf laa war a gën a wan ne yaa nekk ci dëgg bul deltu ginnaaw Moussa bu fekkoon ne bi mu ñëwee ci Firawna rek mu gis armée yi Firawna yor ak matériel yi rek du mu noppi déedéet Moussa ragalu ko lu mu wax Moussa delloo ko ci borom bi tabaaraka wa taala doole ji mu génne Moussa xamal ko yàllaa la ëpp doole mus ko ragal bëccëg te biir këram la daan dem di wax ak moom moo tax ku ànd ak yàlla falaa yambaxi du yell añ yaxsha ahadan ngay ragal kenn minal basar ci mbindéef yi walisa mbokk yi lama xaafa Moussa wa Haaruna min batshi firawn Moussa ak Haaruna musu ñoo ragal dooley firawna lu tax ndax yàlla moo leen ne inni maakuma maa ngi ànd ak yéen yàlla moo ne laa taxaafaa bu leen ragal inni maakuma asma'u wa ara maa ngi ànd ak yéen allahu akbar ndeke yàlla mu ngi ànd ak nu ku ànd ak yàlla nag est-ce que war ngaa ragal keneen war ragal keneen am na benn buur boo xam ne dafa gis salaamaaleykum kaa leen ni ngeen bàyyi mbokk bi mu toog moom na dem ne am na benn buur boo xam ne dafa gis benn benn boroom xam-xam boo xam dafa gis benn buur rek mu yuuxu ko ne ko yow buur bi doo ragal yàlla buur bi ne ko lan laa def mu ne ko place sàngam dañ fay jaay sàngara buur bi ne man fii laa ko fekk sama papa sama papa moo ko fi defoon mu ne ko yow da ngaa bëgg a bokk ci wax inna wajanna abaana ala umma lu ma fekk sama papa ak sama yaay di def rek loolu laay def ci ñooñu nga bëgg a bokk buur bi ne ko déedéet mu ne kon waxal mu dañ buur bi daal ne dem leen ngeen dindi ko buur bi bu mu borom xam-xam bu mu ñibbee benn taalibeem ne ko sëriñ sëriñ mooy tandikul buur bi li nga def tey garaaw na ci biir nit ñi ngay wax buur bi ragalal yàlla sëriñ bi daal di xool taalibe bi ba caag nag mu ne man bi may wax ak buur bi ma xool màggaayu buur bi ak ni ko garde corps yi wëree ak mu ne ma xool màggaayu yàlla rek dafa mel ne muus laa gis moo tax bu may wax ak moom tey moo ko xoolal keneen ki dañ koo sànni ci ay gaynde pour gaynde yi lekk ko mu sujjóot gaynde yi di mar lex bi di ko mar mu sujjóot su doo bu yàgg mu sigg gaa yi dugaloon gaynde yi ñëw ne xool ndax gaynde yi lekk nañ ko ñu ñëw fekk ko mu toog gaynde yi di ko mar ñu ne ko yow lan mooy sa problème mbaa tiitoo bi nag bi ñu dugalee ci gaynde yi mu ne déedéet sama problème moo doon est-ce que yuuti gaynde laab na ba ma mën a julli est-ce que yuuti gaynde laab na ba ma mën a julli man loolu moo doon sama problème waaye man ragaluma gaynde nit day ragal yàlla ku ànd ak yàlla warul ragal mbokk yi bi jullit ñi tàmbalee di ragal seeni moroom mi mbindeef la la islaam bi yàqu ñuy ragal kenn dalaa bind waa ji lay xoxatal dalaa moom dalaa bind daa yor sa ruu ah su munoon dara dina la menacer su munoon dara dina la rey ba mun dërëm ñàkk pexe moo tax mu rey la ñàkk pexe amul pexe daf laa mënalul dërëm loolu moo tax moo tax gis nga yonent yi amul kenn ku mës a menacé benn yonent yonent boobu deltu ginnaaw am na ban yonent lañ mës a ne boo ko fi waxee rek mu noppi yow mi laay waxal ngay gees wax yow ban yonent lañ mës a menacé mu deltu ginnaaw am na amul ban borom xam-xam lañ mës a menacé mu deltu ginnaaw dóor nañu Malik tëj Ahmad ibnu Hanbal imam ahmad dóor ko tëj ko Shafii yi amul borom xam-xam lu leen def ci àdduna ah est-ce que kan moo ci deltu ginnaaw saxaaba yi xoolal ñoom Bilaal xoolal ñoom Ammar xoolal ñoom Musab xoolal jigéen ñi ñoom Sumayya ñun ñëpp gis ngeen lu ñu leen def kenn deltu ci ginnaaw parce que yàlla lañu àndal ku ànd ak yàlla mbokk yi doo ragal bokk na ci juróom-ñetteel ann al anbiya wal ulama hum ashja'u nnaasi quluban borom xam-xam yi ak yonent yi ñoo gën a dëgër ñoo gën a jàmbaar nit ñi ci xol waaw loolu dafa war a leer borom xam-xam yi ak yonent yi kenn gënu leen a ñeme ndax mës ngeen gis borom xam-xam boo xam ne sànq rek maa ngi liir balaa may ñëw benn saxaaba ak benn buur bu tudd Suleymaan buur bi ñëw na Medina fanaan fa ñetti fan mu daal di laaj waa Medina ndax am na ci ñu doon ànd ak yonent yi ci saxaaba yi ku des ñu ne ko waaw kan la ñu wax ko benn tur mooy dem leen ngeen wool ma ko kooku bi mu ñëwee toog ci kanam mu ne ko waaw yow ma hasal jafa lii mooy lan ñëpp ñëw nuyu si ma yow da nga ñëwoo dëkk bi yëpp mu ne ko man dama laa xamul ba ma lay nuyu si xaw ma la ndax danga maa defal lu baax lu ma lay nuyu see dama laa xam ah xoolal kan moo ñëwee wax loolu buur bal sax bu ñu la nee buur ñëw na ci benn dëkk yow yaay njëkk a daw dem seeti xoola kii moom bi ko buur bi ne lu tax ñëpp ñoo ñëwoo mu ne ko man xaw ma la dama laa xamul ba lay nuyu si sama digganteeg yow xameel bu ma lay nuyu see dafee amut allahu akbar boroom xam-xam yi noonu lañ meloon dañoo ñeme dañoo am fit lu tax waaye dafa am nag lu taxoon ñu ñeme de mooy lan soxlaaluñu woon buur dara soxlawuñu woon kat-kat soxlawuñu woon kër soxlawuñu woon terrain soxlawuñu woon tool soxlawuñu woon fas soxlawuñu woon courant soxlawuñu woon tali ñoom yàlla rek tey nag bi borom xam-xam yi soxloo loolu te amuñu ko ñu ñëw jege buur bi ne ko defal ma ko ma wax taalibe yi ñu ñëw ci yow doylatuñu yàlla te jullit bi war a doylu yàlla soo ragalee yàlla yàlla jël ñëpp indi leen ci yow waaw waaye boo yabee yàlla yàlla def yëpp ñeme la moo tax borom xam-xam yi ak yonent yi ñoom ñoo gën a jàmbaare nit ñi ci ay xol wa zalika li annahum yaalamuuna xaqiqata dunya wa daafi wa daafihi wa daafiha li tax mooy xam nañu ñoom boroom xam-xam yi ñoom yónent xam nañu dëgg dëgg dëgg dëgg lan moo nekk ci àdduna ak yambare gi ci nekk ak ñàkk solo gi àdduna ñàkk solo wa muhaanaati ahlil baatil xam nañu encore nitu caaxaan yi ni ñu doyodee fala yaxaafuuna min tahdidihim wala min taxwiifihim du nu ragal mukk mukk mukk mukk ci nit ñi liñ leen di tiital wala liñ leen di xoqatal ah xoolal firawna mu jàpp njabarkat yi naan leen la usallibanna wala usallibannakum fii juzui naxla wala uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min xilaaf ah xool loolu nu mu graawee yépp nunu tawkiid la ak ay ngiñ danaa leen rey yeew leen ci garabu tàndarma yi ba dugal leen ci biir danaa dagg seen loxo ndeyjoor danaa dagg seen tànku càmmoñ di ngeen xam man ak Muusaa mi ngeen di topp kan moo mën a mbugal xoolal bi mu waxee loolu ba pare lan la yaakaaroon ñooñu la ñuy wax ñun ne ko baal ñu ñun kay Muusaa rek moo nu yóbbaale dimbali ñu rek dootuñu ko defee déedéet ñooñu dañ ñu ko ne faq di ma anta qaadin defal li ngay def innama taqdi haasi lxayaati dunia àdduna rek nga mën alaxira mënoo fa tus ñu nag yow ñoo fayam allahu akbar te sax ñu ngi lay yëgal de dun ñii sunu yaram yi nga mën a rey waaye sunu ruux sunu imaan mënoo ci dërëm sunu yaram yi nag bu la neexee nga def ci loo neex waaye sunu ngëm yàlla gi dugg sunu xol yi mënatoo koo génnee allahu akbar moo da nga gis ñi gëm yàlla chaque jour buñ leen di rey wala ñu leen di dóor wala ñu leen def nàngam da ngay fekk imaan bi ne keng ci ñoom duñ deltu ginnaaw loolu moo tax nag mu ne la al anbiya wal ulama hum ashja'u nnaas bokk na ci encore lu ñuy jël mooy anna daaiya sadiq la yaxdabu li nafsihi abadan kuy liggéeyal yàlla kuy woote ci yàlla kuy liggéey ci lislaam doo mer ndax sa intérêt doo mer ndax sa intérêt am na ñoo xam ne tey saa yu ñu gisee ñu mer rek seen intérêt lañ laal seeni kër lañ laal seen bopp lañ laal seen tool lañ laal seen seen seen kuy liggéeyal yàlla lan moo tax ngay mer mooy bu ñu laalee lislaam bu ñu laalee diine ji bu ñu laalee julli ji nga mer am na benn baay boo xam ne dafa gis ay nit di mooy yàlla ci benn garab mu jël jaasi garab gi laay gor dox ba yegg si simmeeku jël jaasi ji bëgg a dóor rek am benn ponkal bu taxaw ci kanamam ne ko waaye looy def ni yow ne ko garab gi laay gor mu ne ko ba nga laal garab gi waa ji xàcc jaasi ji rek ñoom ñaar ñu roofoo boroom xam-xam bi yenu ponkal bi ba ci kaw dóor ko ci suuf na ko boo ma moytuwul dinaa la rey dagg garab gi oui mais dagg garab gi rek mu ne ko déedéet daal bu ko dagg xanaa xamoo ma may kan mu ne yow la kan mu ne man la iblis xëy yow bëri nga doole de sam waay mu ne ko yàlla laa àndal moo tax ma am doole mu ne waaye léegi xam nga nu ñuy def da ngay bàyyi garab gi nga wañ koo dagg saa yoo xëyee suba dinaa la jox 1000 francs nga doole ko sa dépasse xam nga yow amoo dara gis nga mu ne ko est-ce que est-ce que dëgg la noo ma koy joxe ne boo yëkkatee njaganaay bi rek di nga ko fekk muy fi waaw dañu essayé fajar rek mu dë mu julli ba pare rek yëkkati njaganaay rek gis 1000 francs mu yaa saa waay kat wax na dëgg jël 1000 francs daal di jox soxnaam ne ko aar yokk ko ci dépasse chaque jour bu ubbee rek njaganaay bi rek mu gis 1000 francs affaire kat baax na mu dem weer benn bis mu ubbi rek gisul 1000 francs rek mu jël jaasi ci mu départ utali ci garab gi mu ñëw rek fekk ponkal bi daal di wéeru ci garab gi tegale tànk yi croiser les bras day pusal fi yow damay dagg garab gi mu ne ko ba nga laal garab gi rek baa bi xàcc rek mu dugg ko yenn ko ba ci kaw ne ko dël ci suuf doo doo bàyyi garab gi laa la wax si saa yow am nga doole de mu ne waaw xam nga yow démb bi nga àndeek yàlla da nga amoon doole tey nag xam nga koo àndal 1000 francs moo tax ma amoon doole nga yembare waaw tey 1000 francs nga àndal yàlla taxul nga jóg bi nga àndeek yàlla da nga maa daaneel gis nga bi nga àndeek 1000 francs ma daaneel la moo tax nit jullit warul mer ngir àdduna mer ngir àdduna gis ngeen yaqub ayub ayub taal nañu ay toolam ñu rey gàtt yi ñu rey garde corps yi kër yi lakk jabar yi dem alal ji tàkk mu feebar ba gaa yi sax dañuy ëppal yenn saa yi ne sax yee ko doon diri waaye bi sax yi demee ba bëgg a laal xol bi mu ne yàlla mu ne lu tax nag mu ne damay bañ ñu laal xol bi dootuma la mun a fàttaliku waaw gis nga yàlla daal di koy dindil feebar bi xoolal li dem lépp amul problème la wax li dem yépp yépp yépp dafa muñ ngir yàlla kon nit noo xam ne yàlla moo yor mbir yi nit na gëm yàlla nit na dëgëral pas-pasam ci yàlla gis nañ Muusa alayhi salaam musul mer ngir intérêt fa laqad ra'aynaa kayfa Muusa alayhi salaam yuridu qadiyati tawhid gis nañ Muusa ñu mu doon jàllalee tawhid ci firawna firawna di reetaan di ko mokke ah di ko wax wax yoo xam ne waaye Moussa dëgër këj saa yu firawna indee question Moussa tontu tontu goo xam ne keng la amul ragal amul deltu ginnaaw amul yox-yoxi mbokk yi ci juróom-ñeenteelu tomb boobu la ñuy yem ba semaine bi incha allah ñu daal di jekkaliwaat yeneen yi des ñoo ngi ñaan yàlla mu jéggal ni njuumte yi asalaamaaleykum ورحمة الله وبركاته